am na si ñoo xam ne maa ngi dégg ne euh, yow boo waxee loolu ñoom ñu ngeen jàpp ne loolu tegul fenn. ñu ne euh, la woon ba léegi mu ngi mu ngi fi. type d'élection yi rek. ku jàpp ne benn la yow xamoo luy élection. Mhm. type d' élection yi rek rek rek rek rek législative ak présidentielle. Mhm. bokkul xam nga maa di euh, en 2017 le président Macky Sall pour cent. Mhm. de votants. il s' est retrouvé avec presque 80 pour cent des député à l' assemblée nationale. donc type d'élection yi rek bokkul maanaam tey jii nii. nit ku am euh, quarante quarante pour cent am une majorité écrasante à l'Assemblée national parce que type de scrutin bi moom moo tax donc type de scrutin boobu noonu dafay impacter ñaareel ba moom mooy am na ñoo xamante ne. am na ñoo xamante ne surtout euh, coalition ñamu yi ñam maam tam waaw APR PDS fu ñu booloo maanaam Macky la ak waa PDS. suñu bokkee coalition jàmm nga naan leen ñam la ñamu la oh. yoo xamante ne dirigé na 12 ans nga opposé ko 12 ans yëpp. tey même pas 6 mois nga ne moom nga àndal. ah dinañ réfléchir non réfléchissons. 12 ans la APR dirigé 12 ans la ko PDS opposé mois nga ne euh, bàyyi nga loolu nëpp yéen a ànd léegi loolu du ñamu baam weesu na ñamu baam Amadou Ba. Hmm. Amadou Ba. Hmm. six mois la gëj a nekk euh, premier ministre nga gis ñoo xamante dañ doon wax ne ay journalistes lañ di signé ay chronique ndekete nekkuñu ko tey ñu ngi ci biir liste Amadou Ba. kan nga bëgg a wax Madiambal waaw pour mu leer. Hmm. Madiambal laay wax intitut personnel. Ah. waaw da doon signé ay éditorial il se disait journaliste. waaw tey jii waaw tey jii am na ñoo xamante ne tey ñu ngi leen ñu ngi leen di ŋàññi ci plateau yi. Hmm. ay jigéen yu ñuy ŋàññi ci plateau yi ne leen ils font du militantisme waaw ma jàmbal mii nii militantisme am na fàng nag lu tax ñoom waxuñu loolu. lu tax waxuñu ko cest à Sénégal euh, nañ nañ équitable. ah am na ñu koy wax de. waaw déedéet maanaam ñi ma gis ñu takk rajo yi naan jigéen ñi nangam jigéen ñi lan moo tax militantisme ma jàmbal jaaj. bu ne fàng léegi dafa fàng kon démb li mu doon wax moom ma jàmbal li mu doon wax démb ci militantisme boobu la ko tegoon. il a signé des très critiques à l'endroit de Ousmane Sonko. il a même écrit un livre pour dénigrer Ousmane Sonko alors boobu noonu il était de connivence avec la paire na tey. il était de connivence avec Amadou Ba feeñ na tey il est investi sur la liste de Amadou Ba lan moo tax ñooñu di takk rajo yi takkaluñu rajo euh, Madiambal parce que moom moom maanaam dañ ko doon jiiñ euh, loolu ku ñuy di jiiñ loolu ku ñuy jiiñ dem mm-hmm, mu ngi noonu waaw léegi nañ nañ doon kaas loolu bon boobu tamit beneen coalition ñamu mbaam la mm-hmm. alors ces coalitions ñamu mbaam la del xool dafa am ñoo xamante ne mm. ay procédure da di euh, topp mm. waaw nga foog ne ki nga xamante ne moom dafa jàpp ne procédure mi ngi ñëw ci kawam. ak koo xamante ne maanaam day politique euh, day day day battre campagne nii rek. ñaari engouement yi bokk na ak ñaari détermination yi. bokkul du bokk. bokk kon ñoom énergie bi ñuy def ci élection bii nii. Mm-hmm. du bokk ak bañ daan def fële na leen. Amadou Ba candidat de Benno Bokk Yaakaar. y a des membres de Benno Bokk Yaakaar qui n'ont battu campagne pour euh, lui. justement qui se sont retrouvés maintenant dans des autres qui vont battre campagne li ma bëgg a li ma bëgg a mhm. expliquer. Mhm. mën naa joxe exemple euh, bu précis avec euh, des nominations précises. Mhm. Thérèse Faye n'a pas battu campagne pour Amadou elle se retrouve avec la liste de la coalition Ñamu Mbaam PDS APR. donc elle va battre campagne. kon moom waa Jaaxeer dañ croiser la woon bras ci mais waa jaaxeet bi baa dañuy voté. justement moo tax ma ne affaire bi bu ko kenn jàppee lu yomb. foofu la yombul. Mhm. te enjeu bi nee naa la bii moo gën a jafe te bii moo ëpp solo que personne ne dort sur les yëpp bu kenn am excès de confiance maanaam partir du postulat que Ousmane Sonko bu ma joxoñee rek gañe na du dëgg. Hmm. des dëtt nañ dem wàcc sur le terrain convaincre les Sénégalais expliquer pourquoi. c'est nécessaire pourquoi c'est pertinent d'avoir une majorité réfléchie pour accompagner le président Diomaye ci projet bi nga xam ne moom moo ci nekk léegi nag ñële moom ñoom wane nañ seen euh, wane nañ seen bopp wane nañ ne ñoom buñ bu leen Sénégalais joxee dara ci assemblée nationale ils vont bloquer la projet ils vont bloquer le président Diomaye ils vont bloquer le Sénégal pendant cinq ans ah n'est-ce pas te du ñoom ñoo bañ président Diomaye dissoudre les deux institutions ah. nest ñoo ko bañ a voter n'est-ce pas ñoom ñoo saboté euh, le débat d'orientation budgétaire donc kon ñooñu noonu danoo pare pour bloquer le pays bu ñu leen joxee tarfatal ay ni ci biir assemblée nationale ils vont l'utiliser pour bloquer le Sénégal je ne parle euh, waxuma bloquer président Diomaye de hmm. déedéet waxuma bloquer euh, le PASTEF de bloquer le Sénégal alors ñooñu noonu il est hors de question que kenn ci coalition ñami mbaam yooyu noonu am lu ëpp ñetti député léegi nag hmm. seen tête de liste bi. foofu laa bëggoon ñëw seen tête bi muy euh, le président Macky Sall xam nga sànq dañu ñëw ci euh, ñi nga xam ne nii moo di waa Pastef mais ci euh, gis nañ li nga xamante ne bi mooy choix wu le président Macky Sall nekk tête de liste daanaka jógee rek ci nguur gi après ñëwaat ci nu mu gën a gaawee ñëwaat ba nekk nekkaat ci langue politique ba choisir nekk tête de ñu gis ne lu ni mel Pape Moussa est-ce que duñ ci am beneen seetlu buñ ci def mooy ne ne dina indi duel vrai duel bi ñu doon wax muy Jomaay euh, Macky est-ce que du indi finalement bipolarisation boo xamante ne bii finalement dina nuwir yeneen euh, coalition yooyu comme ni nga koy tuddee yow yaa ko yaa leen ko sañu tuddee est-ce que finalement lu ni mel du gën a indiwaat yàqal boo xam ne nii ci Amadou Ba la choix Macky bi mu def ci ñëw nekk tête de liste. Euh, le combat je sais pas si je me fais comprendre xam nga bu njëkkoon dañ daan gis par combat par procuration suñ ko mënee waxee noonu ah. Diomaye euh, Amadou Ba euh, Makeek feene kee toog ne mais bi yoon dañuy gis ah. Macky Sall tête de liste vrai combat aura lieu est finalement du indi bipolarisation boo xam ne ni yeneen parti coalition yi duñ ci gis seen euh, bopp finalement ça arrange ça arranger Pastef et nuire à Amadou Ba ak coalition je ne a la force d'imposer une dualité à Ousmane Sonko ah Ousmane Sonko moom moo amoon dooleek imposé ko une dualité malgré qu'il était président de la République. Mm. Ousmane Sonko est premier ministre. mais Macky Sall n'est pas de taille à imposer une dualité et vous verrez les résultats. mais ma la. Mm-hmm. jàpp naa ne euh, tey jii mm-hmm. effectivement le combat le grand combat Macky Sonko moom moo ko euh, moom moo ko saboté en deux mille vingt quatre. Mm-hmm. parce que moom mënul woon doon candidat mu ne Ousmane Sonko du fi doonee candidat. ci tooñ képp nag. man mënu doon candidat waaye yow doo doon candidat ci tooñ kenn Sonko boole li ko neex ak li ko naqari jeter son dévolu sur. Euh, Bassirou Diomaye Faye moom mu yóbbu Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye tër Amadou Ba. Mm-hmm. moom mu ragal parce que Ousmane Sonko était imprégné ci biir euh, élection bi. Mm-hmm. Ousmane Sonko dafa bokk ci élection présidentielle bi. Mm-hmm. wàcc mu yee la mayo moom mu yeewul mayo. bu mu yeewoon mayo ci lay xam. dëgg dëgg dëgg dëgg la force de frappe de Ousmane Sonko mais garaawul foofu noonu dafa waaf maanaam commune bëri lii la def. nu mu mhm. tuddee dafa sàqi mhm. alors léegi nag nee na day jël si revanche am. directement Ousmane Sonko tête de liste Macky Sall tête que waaw nga seetaan loolu noonu mais man dama jàpp ne. tête de liste bi mhm. tamit. mais tëdd listam bi. Euh, ndax dina am lu du dara dara plus lay doon. non lu muy yàq non non jeune waaw xam naa li nga wax est-ce que dafay yokkal am wàcc Amadou wàññiwul kenn yokkulul kenn parce que Macky Sall li mu fi bàyyi comme passif moom mooy 86 sénégalais yu dee. Macky moom mooy l'unique leader politique au Sénégal boo xamante ne am na plus de 2000 mandats de dépôt yu mu teg ay xale yu am 13 ans. Macky Sall moom la passifam nekk ci nit def ñetti émoji kon mu tëj la ci kaso bi Macky Sall moom moo fi taxaw jiiñ ay sénégalais yoo xamante kenn mosu leen gis ñu yor lemset Fadilou Keita Bassirou Diomaye Faye Pouceau kenn mosu ko gis mu yor mu jiiñ leen terroriste te c'est Macky Sall alors kooku noonu foog naa ne tey jii nii la mu waroon a euh, séq ak sénégalais yi mooy di wér di chaque jour di leen baalu ak Sénégal baal leen ma Sénégal baal leen ma et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait même son dernier acte gouvernemental c'est de poser moom moo ko def projet ay député am ñoo ko voté unique président boo xamante ne acte de gouvernement mooy lépp loo xamante ne defoon naa ko fàtte leen ko xam nga amnistie mooy nañ fàtte moom loolu la def kon donc kii lii la ji Sénégalais yi Sénégalais yi nga xamante ne yow ba ngay xam Macky Sall ba ngay dégg turam ba léegi ci agent wu Petrosen directeur dans Petrosen directeur général Petrosen ministre des mines hydraulique collectivité territoriale intérieur premier ministre président assemblée ko dara mm-hmm. mais lan la fayee le 2 avril damay dem premier tour ak deuxième tour damay dem mel ni maanaam ku ku ku ku ku ku jéppi sénégalais yi ci euh, ñu baal ma ci kàddu mel ni koo xamante ne daa am lu la sénégalais yi def yàqamti jël leen seen réew bëggatuma ci dara nangam nangam kooku loolu la ñu war a fayee tey jii moo war a ñëw taxaw xool ñu ñu koy xool mu naan leen fan leen ma député kooku moom moo war a def loolu quoi donc je pense que ni moom ils sont passifs en tant que leader politique. man jàpp naa ne mu ngi waroon na des ci di wéy di baalu Sénégalais yi ak. ba loolu loolu loolu xam nga wax deuxièmement mhm. moom mooy ne dafa démissionné xaw ma fan. 4P euh, ba. loolu daan doon doon nañ ci doon ñëw sax. pour mën a ñëw mhm. euh, euh, nekk tête de man jàpp naa ne loolu tamit c'est de la poudre aux yeux n'est-ce pas jël na benn poste ci Nations Unies. waaw lu tax nga ne c'est de la poudre aux yeux. moom bi muy nekk fii nii nekk président de la République. Mhm. du Sénégal. ci la joxe accordam pour 4P. bi nga xamante ne assemblée nationale ñu ngi di imposer un blocage des institutions bëgg a le fonctionnement de ce pays là moom moom lañ doon woo ay appel vidéo Abdou Mbow di ko woo appel vidéo mu leen di jox ay instructions alors qu'il était ci biir 4P boobu noonu en quoi ce serait différent aujourd'hui alors kon donc jàpp naa ne euh, man de moom personnellement bu ma ko euh, bu ma gëmee ne Macky day ñëw fii baatu campagne dama koo gis Oh. waaw. lu tax nga gëm ne du fi ñëw. man gëmmu ko man lu tax. parce que lii ma la wax nii yëpp ay dee ay rey. da jàpp ne moom bu ñëwee amaan na moom it pour mu génnati dëkk. bi mais dafa waru génn Macky Sall gis nga bi muy génn di dem euh, euh, jour le 2 avril mhm. bi. bi mu defee passation ba pare. Mhm. gis nga fa xasaloon bi yow. déedéet. bi muy dem daa fa daw maanaam xaru sax ndogu. <laughs> na ñëw dafa war a ñëw nag dafa war a ñëw répondre de ses actes. sax lu ni mel assumer ses responsabilités lu ni mel euh, Ousmane Sonko wax na ko bi mu defee face à la presse mooy ba muy wax euh, ministre euh, de finance yi fi joto kii. waaw mais tudd na it président. non il a une responsabilité pleine et entière les ministres là sax. gis nga ministre yooyu noonu. Mhm. Moustapha Ba Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo. ils exécutaient tous dans le cadre d'une politique globale définie par le président de la République. moo tax ñuy taxaw di ma laaj ay directeur euh, de de la programmation budgétaire ñooñ dañoo yor Sénégal yi le ministre exécute dans le cadre de la politique globale définie par le président de la République kon ñoom lépp lépp lu ñu def il exécutait sa politique kon lép lu xew c'est le premier responsable moom maanaam bu respecté woon sénégalais yi ak respecté jaar-jaaram. Mm-hmm. bu wàccee Sénégal day taxaw ne kaa ñu def édition des comptes balaa maa génn réew mi mais daw bay fa xasalu. Hmm. waxuma la mu naan ay 4 ak 5P. alors donc man jàpp naa ne tey jii nii dafa war a ñëw de. dafa war a ñëw xool pàppaay baaba kaana bët bët wax ko lan moo xool yaayu Cheikh Koli xool ko bët bët njabootu euh, Cheikh Diop Idrissa Goudiaby bi ñi nga xamante ne yëpp ñàkk nañ seen bakkan dans la foulée du conflit qui que lui a imposé au Sénégal. loolu est dina yomb d'autant plus que da gis ñenn ñuy toog di wax naan campagne yi ñu ngi xaar ba ñenn ñu bokkee ci euh, benn wala dara romb ñu nga gis lu si mel ni sax tey suba maa ngi dégg yu nu mel analyse benn euh, nouvelle bu mel noonu Babacar Touré di ko wax ci benn ku jigéen koo xam ne am na ay kàddu yu xaw a ñagas yu mu yëkkati jëmale ko si ñoom ñu dajee waaw je sais donc est du lu ni mel tamit sax moom ñëwam dina am leneen lu mu war a mën a indi est-ce que ñëwam tamit du du sax du ko indi jafe-jafe plutôt que sympathie. moo tax ma ne la gëw dina ñëw. mais dina démissionné foofu dina ne. dina ne dafa démi démissionné foofu ngir ngir ñëw bokk ci liste yi baatu campagne. ba démissionné te du tax mu ñëw kon kon ban sens la am. gëm ma kon lan nga gëm. gëmuma ko da bokk ci da nga bokk ci ñenn ñi gis ne xëy na démissionné wul mais dañ ko libéré wala nee naa la yow balaa ngaa génn ndax peut-être euh, ce qui s'est balaa moo génn senegal la accepté Sénégal ak euh, bi muy nekk président mhm. la accepté poste bi yow bu dee maanaam être président de la République jomb la ngay wuti beneen xëy ci beneen réew hmm. jomb la loolu kon être tête de liste nu lay jombee hmm. gëmuma loolu hmm. gëmuma loolu alors léegi nag maintenant jàpp naa ne tey jii nii bu ñu wàccee fii di campagne eh, ankay ah, ankañ ah, buy campagne ba lomb euh, yaayu euh, Pape Amadou Keita ah war na ko il lui doit des explications Macky Sall lui doit des explications parce que boo jiitee réew euh, Papa Thion nee na yaayaa ku fi xaaxam jam sax yaa ko ko war a simple la responsabilité du président de la république est très dafa diis mm-hmm. voilà léegi nag nga xëccoo wax a wax a wax bañ jox la ko Sénégal yu bari yi nii ñàkkee seen bakkan. tëj yi ne euh, ay nit yu disparaître comme ça ba léegi xamuñ ci luñ nekk. surtout nga leen say dëbës daw. Mhm. taxawoo leeral. Mhm. amoo loo ciy def lu dul si na ñëpp baal ñu fàtte nañ fàtte mbir yi. Mhm. Ah, kooku noonu day ñëwaat fii nii di campagne nii nii nii après mooy loolu. déedéet léegi nag moom it ba mu koy def ba mu koy def it am na ñu ne woon pat ak boom dénoncé wuñ xeexuñu te yàlla moo ñu ko sant nag injustice moom boo ko gisee. lu mu néew néew néew war nga koo naqarul sa xol. Mhm. kon li su Amadou Ba bi tamit mburu foofu ko fëri. waaw man xam naa sànq sax danga nga comprendreul fi ma lay waxee. mooy déedéet soit da nga ko comprendre wala da nga ko. déedéet comprendre naa de dama la bëgg maanaam comme ni ñu ko defee woon waa déglu ma ci élection présidentielle yi. ni ñu nekkee woon lan nga daan dégg. Jomaay ak kan Amadou Ba. amul moom nga doon dégg ndax ndax ndax tey jii nii euh, texte yi tamit li tax ma lay wax ne est-ce que ça Ba mooy tey jii nii peut-être xëy na bu Macky loon moom xëy na bu parti boobu tasoon wala dara euh, dina ci am ñoo xam ne nii tey jii dinañ rejoindre Amadou Ba hmm. nest pa pas hmm. ah pourquoi nga ne hmm, parce que man li ma gëm mooy Amadou Ba li mu am ci présidentielle yi moo ko moomal boppam kenn Macky Sall euh, defu ci dara dualité bi ngay wax tamit lan moo tax mënuma ko gëm. liste Karim bi ah jàll na dama Karim xurum xaq. Ah. listam bi jàll na. Karim est jot na déposé. xaw ma mais la waroon bu déposé woon mooy raw Macky Sall. la waroon euh, kii. je pense que waaw ket. ah wax dëgg wax dëgg booy mais booy booy tamit sérieux wuñ quoi. Euh, euh, kañatu Karim booy tey di ci def ay 5 francs ak ay. conférence de presse ma ne. <laughs> noonu lañ def Karim le petit visible Pape Abdoulaye Touré. le petit ban liste la nekk. kan. lëgëra Amadou Ba bi la nekk moom je Macky Sall man pour man amul doole bu muy imposer une dualité à à Ousmane Sonko. Cheikh Abdou Bara ngay tooñ quoi. waaw amul doole politique bu mu war a mën a imposer quoi que ce soit Macky Sall il nous doit mm. lii laa gëm quoi parce que euh, maa di euh, il faut pas que tamit qu'on soit amnésique. Mm. ci réew mii leen nu nekk fàtte xaju fi. Mm. kii moom moo. entre 2012 ak 2019 rek a dem. entre 2012 ak 2017 bi nga xam ne fa la waroon a def élection présidentielle bi. mu ñëw wax waxeet yóbbu ko 2019 intervalle boobu noonu li mu arrêté ci ay leader politique yu PDS kenn xamul lu mu toll. éliminer Karim Wade éliminer Khalifa Sall. 2019 2024 mu xam ne ki ko mën a sonal Ousmane Sonko la. il a orchestré des complots di des choses vraiment inimaginables contre Ousmane Sonko. d'accord alors donc euh, ñi nga xamante ne mooy sénégalais yi. Hmm. boole lu leen neex ak lu leen naqari muy metti nag trop. Hmm. wax sax maanaam wax ne lii moo xew sax boo koy def seen waa dañ lay téye. Hmm, d'accord. d'accord ci yeneen liste yi comme ñu si mel ni euh, coalition sàmm sa kàddu boobu nag. Euh,